déjà dafa am le message est très clair je pense que ñëpp gis nañ ñi nga xam ne moom la xew moo xew jot na am yu ndaw yoo xam ne am na par rapport ak euh, arrestation bi nga xam ne def nañ ko ñun bi ñu demee buntu assemblée nationale waaw damay ñëw pour expliquer ce qui s'est passé en réalité dëggantaan ce qui ñun dañu jàpp ne en tant que sénégalais en tant que des jeunes sénégalais activistes am nañ droit manifester amul benn lieu fii Sénégal bu ñu amul droit manifester alors ñëpp xam nañ loi bi li si topp et tout loi bi euh, Macky Sall ak dictature ak loi bi muy jàpp loi yoo xam dafa dafay ñëw loi yi ci boppam day mabal constitution au Sénégal on a trouvé nécessaire en tant que activiste gis ni dañu war a jug manifester assemblée nationale ñëpp ko moom ñu dem buntu assemblée nationale on était quatre on était quatre man la Bayna Gueye Abdou Karim Gueye Ousmane Sarr Fallou ak Thierno Sall donc on était cinq on cinq alors police plateau fa la ñu fekk ils étaient deux ils sont venus dañu ñëw nañu jóge leen fii quoi jóge leen fii dañu leen yóbbu ñoo nangu suñuy téléphone bi ñu yóbboo ils am amené ci commissariat plateau bi ñu yóbboo ci commissariat plateau teewuñu fa 30 minutes defuñu fa 30 minutes ñu génn ak ñun defuñu si oto yi on n'avait pas compris ils sont partis avec nous ba autoroute bi si niveau Colobane ñu wàcc nañu dem leen ñibbi on s'est dit mais ñun on a le droit de manifester mais dañu taxaw pour manifester par rapport ak li nga xamante ni wane suñ indi ñëw par rapport ak loi bi nga xamante dañ ko war a voter suba jeudi soir jeudi si guddi la alors on a retour on a retourné ñu delluwaat assemblée euh, assemblée nationale bi ñu demee assemblée nationale nag dañ fa fekk nag police parce que bi ñu njëkk dem y avait pas la police là-bas fa lañ fekk police fekk nag commissaire ma Serigne Faye euh, bi nga xam moom moo géré groupement opérationnel bu Dakar euh, mu nekk moo nekk kan Abdou Diassé bi nga ko fekkee déjà man dama wàcc j'étais avec Fallou dama wàcc rek juste discuter rek ñëw di wax Macky Sall dictateur mu commencé saaga faut le corriger dóor leen ko il faut di saaga saaga yu ñaaw yoo xam ne ñu ko wax si télé di saaga saaga yu ñaaw quoi bon man je me suis dit man je rien compris après ñu song ma dugal ma si oto bi di moom moo njëkk jël benn casque policier di ma ko dóor si si au fait j'ai senti que il a voulu me blesser quoi après ñu jël ñu yóbbu ñu ils nous ont amené police centrale bi ñu je vu que ni bugguñu fa téye aussi ñu ñoo juste tout juste enregistré quoi la laaj ñu suñu tur suñu sant après ñu jël def ñu si ay pick up menotté yóbbu ñu camp euh, camp Abdou Diassé yegg camp Abdou Diassé le même commissaire euh, ma Serigne Faye dañu yegg ñu commencé on était menotté ah on tous menotté ñu ñëpp dañu menotté woon ñu commencé embargo dóor leen dóor leen ñu commencé ñu ñëpp dañu dóor lu am nit comme kuy dóor ay sàcc quoi comme si on était en fait je sais yoon tamit il s'est permis di dóor bon comme man au fait man m'a marqué mooy ñi ma àndal maa ngi gis ni ñi ngi naan Karim dafa feebar ñoom ñëpp ñi ngi daw tëdd sama kaw pour bañ dóor yi ma quoi bay naa ak euh, Fallou Mbaye Thierno ñoom ñëpp ñi ngi tëdd sama kaw quoi ak Ousmane Sall mais après ñoom man man j'avais pas compris gis naa ne ngi dóor di dóor ma man dóor yi laalu ma ngi tëdd sama kaw policier yëpp a ngi dóor moom aussi biñu paree bi nga xam dóor na ba ñu siggi mu ne c'est bon c'est bu ñu siggee mu a ma noo tudd ma Serigne Faye le commissaire lui-même ma ne ko Abdou Karim Gueye ci la nag di ma dóor quoi moom lui personnellement jël engagement wu moom il a il moom de gérer quoi moom au fait def na li muy def quoi def ñu mënute xam nga ko mënute je pense mayoo ko sax pour mu pour li ngay dóor quoi dóor na dóor def lu ko neex man man j'ai cru man sama sama côté dafa dam parce que tellement il a mis toutes ses forces ci dóor yi mënoon sama sama après ils nous ont ils ont déshabillé tekki monoti après dugal ñu foo xam ni bon ken xamul cellule la xaw ma la mais li gën a doy waar au fait man ce qui m'a poussé à dire que il faut ñu taxaw si lii xëy na peut sax c'est pas ñun dóor yi c'est parce que ci mbedd bi lañ dëkk quoi amul problème Sénégal jar na lu nekk gars yi dañ naan da nga feebar man Sénégal moo ñu gën a feebar lii yëpp c'est le combat lii mënul dañ lii taxul ñu bàyyi dem nañ buntu palais manifester fa dem nañ buntu assemblée nationale manifester fa buntu kër Macky Sall Mermoz moo des fa dem donc comme ñun lii du moo ñuy wàññi quoi mais problème mooy le commissaire lui-même déglu leen bu baax li may wax c'est très important il s'est déshabillé dem xam nga bi muy dañoo sol seen masque yooyu noonu mu dem changer yéreem sol yére olof il est revenu bon mel ni ku joué cinéma quoi comme fii comme si comme si rien n'était comme si c'était pas lui qui nous frappait quoi ñëw naan non mais bàyyi leen ñii non sol leen yére waay wala jox leen vêtement ñu naan lii c'est pas humain comme si ñun dañ dof quoi en fait après il est venu mais man li ma marqué mooy dafa wax ni moom Antoine Diome c'est son ami quoi moom sànq la jógee ci ab bureau Antoine Diome ak ak ak ak y avait le préfet là-bas le préfet qui est affecté là qui vient d'être affecté waaw Alioune Badara Samb mu ne ñoom ñoo nekkoon naan loi bi yéen ñi ngeen di xeex loi bi dara nekk aussi en fait comme si c'est moom du alkaati quoi man en fait man j'avais du mal à comprendre en fait il était là pour défendre ay loi di défendre loi bi di wax loi bi dara nekk aussi xam nga yéen ne euh, yéen oppos opposants yi yéen ak yéen ñi ngeen ñoom topp ñoom 23 juin dañu yaakaaroon ni peuple dañuy ci peuple bi juguñu moo tax ñu bëgg coûte que coûte indi problème quoi man je me suis dit mais léegi ah, ana où la police quoi parce que y a des choses xam il faut sénégalais comprendre que man à chaque fois dama koy wax dama koy wax Diouf Marissa des fois dama c'est la police sénégalaise loolu c'est pas la police au fait loolu du police parce que même les policiers qui étaient ñoo xam dañu doon couvrir man bi ñu may doon am na si police yoo xam dañ ko dañ doon couvrir nii bañ ñu dóor ma donc pour vous dire que ni pas la police au ay quelques uns la yoo xam c' est parce que même bu dul dara nit nit rek être humain waroo takk nit di ko dóor takk pas humain donc man mënu ma condamner la police mais damay condamner ay quelques uns yoo xam ne il veut moom instant yi moom moo géré moom mooy GOT comme ni ñu ko groupement d'opération opérationnel bu bu bu Dakar euh, Canap du alors posture yooyu ñuy nekk noonu xam nga pour am ay mission yooyu ak tuuti wecc di ñaam xaritoog ministre beeg yooyu moo tax après mu ngàbbu làmminam quoi ñëw mel ni bëy di bëri wax suñu kaw lu nekk wax na ko foofu donc man je pose la question au fait fan la Sénégal jëm parce que ñun est que war nañ bàyyi qu'on mette en mal avec la police aussi est que problème bi c'est nous avec la police c'est que ñooñu war nañ tax ñun ñuy attaquer police parce que am na police yoo am mais c'est ñun plus de man ñaata depuis 15 ans ñu ñuy arrêté dem nañ plateau dem nañ central dem nañ police bu nemee policier musul yëkkati loxoom laal ñu même policiers yi nekkoon foofu les les les bérets rouges sax ils n'osaient même pas nous toucher moom la commissaire moom moo jël en charge moom ne dafay dal suñu kaw donc message bi moom ñu suñu message mooy on veut savoir quoi lii lan la léegi nag dañ koy topp si yoon ñun dugal nañ tey plainte au niveau du tribunal ci procureur euh, que ñun kaat ñëpp dañu blessé dañu gaañ man dama je peux même pas xam na dañ ma gaañ gaañu grave je peux même pas bouger donc léegi ñu lu bëgg xam quoi dañu bëgg comprendre di xaar ndax justice dina def liggéeyam ci ma Serigne Faye nga xamante ne nii au fait c' un nervi quoi c' un policier parce que mënu ma comprendre yow nga nekk un officier de la police sénégalaise ba pare nga am sañ-sañu taxaw di ne def le sale boulot parce que un ami de un ami de de de Antoine Diome de l' intérieur parce que bi ñu man message bi laa bëggoon expliquer pour amul dara dara luy tax ñu dellu ginnaaw ci xeex bi ñuy xeexal Sénégal et que manifestation yi pour loi bi nga xam moom la Macky Sall dugal duñ ko bàyyi dañuy continuer di manifester que personne ne pourra nous empêcher de manifester on xam dafa démocrate te du Macky Sall moo ko yàq dinañ topp yoon nag li ñu war may xool lan la procureur di def si liggéeyam ndax moom Serigne Faye moom yoon dina ko topp waaw mais ñun rien ne peut nous empêcher de manifester